Téliko devant le conseil de discipline du conseil supérieur de la magistrature mu nekk mbir boo xam ne rek yëngal na système judiciaire bi rawatina UMS bi nga xam ne foofu la féetoo yow en tant que constitutionnaliste ou bien en tant que euh, acteur de droit noo gisee mbir yi Souleymane Téliko ak euh, ministre de la tutelle. waaw man lay gërëm muy loo xam dinaa ci sawar wax lool. parce que kii di Souleymane Téliko man xam naa ko. Mhm. xam naa ko ci liggéeyam waaye tamit xam naa ko. ci pas-pasam pour n'est-ce pas euh, respecter la loi mais faire respecter la loi am na solo damay rappeler ni Souleymane Teliko euh, c'est un virtuose de l'indépendance de la justice mm-hmm. maanaam Souleymane Teliko koo xam ni la ci li muy dox lépp mooy justice moom boppam mm-hmm. ñu teg ko ci yoon mu am àq ak yelleefu ñépp te ci loolu dama jàpp ni lii ma gis muy ñu koy yëkkati temps yi dama jàpp ni man euh, dafay indiroog acharnement acharnement parce que gisuma loo xamante ni wax na ko wala def na ko ci loo xamante ni ñu war ko mën a yóbbu n'est-ce pas ci conseil de discipline gisuma ma man mais gisuma it donc Souleymane Teliko foo xamante ni nii tey jii nii yox nañ ko loo xam ni damay rappeler ni Souleymane Teliko moo rendre en tout cas man de 1960 à maintenant l'une des décisions les plus emblématiques en droit public sénégalais muy ban mm-hmm. dans l'affaire Wuri jàlloo le président de la République moom moo gracier koo xamante ni nii warul woon a bokk ci ñu ñu gracier mm-hmm. président ñu wax ko mu ne dafa juum l'affaire ñu yóbbu ko appel mu dem n'est-ce pas cour d'appel de Thiès ba mu ñëwee Souleymane Teliko dañ ko décret nga gis Euh, parquet bi daf ni ko munoo ko topp parce que président la mais Souleymane Teliko ñun bu ñuy jàngale di catégorie nan la def dafa dem ci préambule bi xool le principe de la séparation des pouvoir mm-hmm. mais xool aussi donc ne justice bu waree àtte dara nekk en cours kenn waru ci interférer mm-hmm. fut-il président de la république donc fa la tibbee le principe de la séparation des pouvoirs motiver sa décision muy l'une des meilleures décisions rendues ici ñu ko ci delloo njukkal benn ci topp mooy Souleymane Teliko depuis mu nekk à la tête de l'union des magistrats du Sénégal ay combat de principe lay xeex te yoo xam ni c'est des combats nobles mm-hmm. et à chaque fois Souleymane Teliko def na de telle sorte que tey jii nii l'union des magistrats du Sénégal dafay dem vers la société civile dafay dem vers n'est-ce pas d'autres nest pas acteurs pour pouvoir ne serait resque que dire comment fonctionne la justice mm-hmm. loolu nag rapprocher la justice du citoyen loolu suñuy loi la nekk bu fekkee ni nag nit ki mi ngi def loolu ñu ne loolu muy def méngoowul ak yoon man xamatuma lan mooy yoon wala ki nga xam ni mooy Souleymane Téliko jiite union des magistrats du Sénégal bul fàtte ne magistrats yi amuñu syndicat loi bi dañ la ko tere donc cadre bi nga xamante ne moom la ñu mën a waxee approprié muy union des magistrats du Sénégal mais ki ko jiite war nañ mën a génn di wax mhm. d'autant plus que Souleymane Téliko day wax ci affaire yoo xamante ne parfois dinañu gis ni donc lii kat war nañ ko mën a jubbanti wala yoo xam ni bu ñu attaqué sax ay magistrats day di leen défendre par des communiqués l'UMS fait des communiqués pour défendre la corporation parce que loolu mooy cëram mais malheureusement dama gis ni c'est une sorte d'acharnement mhm. et man dama jàpp ni si Souleymane Téliko ne mérite pas un excès d'honneur il ne mérite pas tant d'acharnement mhm. si biir affaire xalifa sàll gannaaw ba mu amalee émission foofu la si ITV wax na ni euh, que procédure judiciaire bi ni ñu ko defee fii au niveau du Sénégal dafa am ay manquement déjà rek mu mel ni comme dafay euh, jonne raison ak euh, cour d'appel bu bu CEDEAO est-ce que nekkutoon aussi di di di di jeter benn discrédit si si moroomi magistrats yi nga xam ne ñoo joxe boobu les décisions judiciaire <laughs> mais, mais il n'a fait que rappeler une décision de justice ban discrédit la kon dañu bëgg a wax ni c'est la cour de justice de la CEDEAO moo jeté du discrédit sur les institutions du Sénégal. man mënuma jàpp ne dañ ko woo en tant que président de l'union des magistrats. du Sénégal mais magistrats yi dañoo am aussi ni ñu war a taxawee. waaw ma jox la exemple. Mhm. li lay wan ni fii deux poids deux mesures a fi am. Mhm. dañ ne la magistrat bi même bu nekkee en détachement. d'accord am na obligation de réserve. obligation de réserve mooy am de la retenue dans les propos mais am na magistra yoo xamante ne ñu ngi en détachement nguur gi la ñu fare mais am nañ mouvement politique pourquoi ministre de la justice garde des Sceaux woowul IGAJ ba pare wax ñu trans ñu yóbbu leen au conseil de discipline li may wax lu leer la am na fi ay magistrats yoo xam ne tey dañu leen a détaché te magistrats yooyu ñu ngi def politique te ci nguur gi la te ñu ngi leen di sax yokkal ndombal tànk. te amuñ droit pour magistrat même bu ñu la bu ñu la bu ñu la bu ñu la yóbbee en détachement parce que détachement position la Sénégal position d'activité moo am pour le fonctionnaire position de détachement ak disponibilité maintenant boo nekkee même détachement mhm. nga nekk même magistrat amul droit def de la politique. donc ñoom dañoo violer loi bi. alors que kenn leen dara parce que dañoo faral nguur gi. Hmm. mais Souleymane Téliko moom ci cadre bi muy waxee mais il est le président de l'union des magistrats du Sénégal. li l'union des magistrats du Sénégal est-ce que xam nga ne day def des propositions au gouvernement pour l'amélioration du fonctionnement de la justice dans ses activités di génn di wax et cetera ma joxe beneen exemple pourtant le procureur de la République dans l'affaire Aïda Diong def na fi communiqué génn mais tribunal de grande instance génn décision ay moromam mais mu def communiqué ni c'est une décision illégale lu ca mujj dara man dama jàpp ne je suis d'accord avec l'état de droit je suis d'accord que les principes soient respectés mais dama jàpp ni on essaie seulement de bâillonner Ousmane de de de de pourquoi parce que Souleymane Teliko deful lu ñu ko war a conseil de discipline c'est un magistrat mais au-delà de ça dama ni c'est un n'est-ce pas de l'indépendance de la justice Souleymane Teliko défenseur de l'indépendance de la justice Souleymane bu ñu fàttee ni même il est récemment devenu un docteur en droit et donc kooku magistrat sax buy bind la il a sorti même un ouvrage donc sur la méditation ça veut dire que moom boo xoolee day xeltu ci lu jëmal kanam justice waaw ku mel noonu moo tax ma ne la s'il ne mérite pas un excès d'honneur mais il ne mérite pas d'acharnement mhm. certains de ses pairs euh, magistrats ñoom dañ koy coller motif bu ñu remonter rek à l'histoire depuis euh, nga xam ne si la bëggoon doon président bu mu doon tenir da doon wax ne euh, certains ko topp ba tey par rapport ak euh, la engagé mais man Souleymane Téliko ma déglu mu wax man ñoom ñu def seeni réforme moom à travers nest mu déroulé mooy ñoom ils veulent. à ce discours de rupture. mais un discours de rupture mais on l'attend pour chaque personne qui est élue n'est-ce pas pour faire un travail Souleymane Tanor Sow dañ ko fal pour mu jëmale kanam n'est-ce pas UMS mais pour mu def des aussi des jéego ba nga xam ne Union des magistrats du Sénégal war naa am ay jéego mais gis nga par exemple réforme yi UMS def ni par exemple le conseil supérieur de la magistrature dañ ko war a ubbil n'est-ce pas à certains corps même ñun les enseignants du supérieur mm. mais moo am yeneen dëkk moo am Maroc par exemple mais wala par exemple ñuy wax sur le financement de la justice wala tey par exemple sur la condition juridique du parquet. Mhm. waaw man dama jàpp ne loolu bu ñu koy wax mais c'est en soi bien pourquoi parce que au moins dinañu parfois même autorités yi. Mhm. am loo xamante ni kat danañ ko déglu ba nga xamante ni dina leen permettre éclairer leen ñu mun def des réformes mais lan lañ bëgg ça veut dire tout simplement kenn warut a wax. ah non état de droit du loolu damay jàpp ni en mhm. réalité même un fonctionnaire a la liberté Maintenant, cette liberté d'expression s'accompagne avec de la retenue. On réserve. Mais la réserve ne signifie pas tout simplement qu'on doit accepter d'être bâillonné. Mmh. ni notre mu ngi xamle ne fu mu toll nii même sax ci euh, élection présidentielle yi dafa génnoon am ay euh, kàddu yoo xam ne yëkkati woon na ko par rapport ak référendum bi te moom dafa jàpp ne benn euh, magistrat de l'ordre de justice amul droit wax ci lépp rek loo xam ne am na référendum donc sur ce point nan lañ mën a qualifier kii nga xam ne mooy Souleymane Téliko si ay actam non man mënuma d'accord ak posture boobu j'ai lu l'article mhm. mais dama jàpp ni li l'union des magistrats du Sénégal ñoom am nañu droit def seen rapport def seen appréciation du déroulement d'un scrutin je vous donne un exemple est-ce que vous savez que le conseil constitutionnel du Sénégal ne fait pas de rapport ah <laughs> conseil constitutionnel du def rapport te mooy saytu élection yi no loi bi may ko ko ñoom ñoo am de la retenue suñuy juge constitutionnel est-ce que xam nga ni parrainage bu Sénégal bii ñun ñu tibbee ko ca France. Mm-hmm. ci conseil constitutionnel français la jóge conseil constitutionnel français moo def un rapport après l'élection présidentielle. kon gis nga ni rapport boobu justice bu waxee mais comme waxul nga gis ni kon l'union des magistrats du Sénégal bu ñu génnee wax même ci scrutin am na ay appréciation yu ñu mën a def yoo xamante dinañ ci mën a jëlee tey ji ay sukkandiku ba ne kat dinañ améliorer le système du dëgg moom dama jàpp ni donc voilà le système sénégalais moo demee noonu moo tax man la union des magistrats du Sénégal tey jii nii dafay bànqaas boo xam ne dañ ko war a dooleel dañ ko war a dooleel que appréciation yi muy def war na que ñu am ay jéego ci justice mais par contre pour avoir une justice équitable et digne de ce nom il faut accepter tout simplement des critiques il faut accepter le débat n'est-ce pas pour que quand même donc ñu améliorer le fonctionnement mais su ñu bëggee nekk rek dans le statu quo ante c'est-à-dire tout simplement rien ne bouge amul dara kenn du wax mais là dañuy dem vers le totalitarisme vers l'arbitraire et loolu c'est en soi dangereux Pourquoi? Parce qu'en réalité, le fonctionnaire en 2020 n'est pas le fonctionnaire de 1960. Je vous rappelle, en 1966, dans une célèbre affaire Babacar Lo Abdou Salam Diallo benn fonctionnaire dañ ko radier parce que rek dafa nekkoon ci meeting ah, ñu ne il avait tenu des propos injurieux à l'égard du président de la République obligation de réserve la certes mm-hmm. mais tey juste su doon qualifier loolu mun na ko qualifier ailleurs euh, autrement mais li mu mun a wax foofu noonu dañuy jëmmal président de la République mais dañuy jëmmal parce que tey Souleymane Téliko mais est-ce que xam nga ne moom en tant que président de l'union des magistrats du Sénégal dafa am légitimité mm-hmm. même su fekkee entre légitimité descendante ak ascendante bu ñu mën a wax parce que ses pairs ñoo ko fal mais su ñu ko falee nag c'est pour que UMS mën a wax am ay revendications mais mënut a toog mu noppi ça pas de sens kon France les magistrats ont un syndicat mm-hmm. dañu gën di wax moo tax man la fi am ñu syndicat UMS lañ am donc moom rek la ñu mën a waxee donc man dama jàpp ni lii lépp stratégie boo xamante ne la dañu bëgg a jël Souleymane Téliko donc voilà pour tout simplement faire de l'acharnement sur contre le principe de l'inamovibilité nga xam ne kii di euh, Souleymane Téliko aussi da koy xeex à chaque fois mu nekk mbir boo xam ne mun nañu wax ne aussi déclenché na euh, mbirum euh, kii nga xam ne mooy Souleymane Téliko par rapport ak affaire Ngor Ngom loolu justice nag a gis nga xam nga tey waa loolu su ko UMS xeexul kan moo ko war a xeex magistrat boo xam ne dafa def liggéeyam ñu ni la kii il est inamovible magistrat du siège la cest à que fi mu nekk dara mënu ko fa jëlee à part son consentement ñu laaj ko mu ñëw def liggéeyam ñu jëlee ko fa parce que tout simplement dafa am une mainmise sur sur la justice UMS waru ko dénoncer loolu. mais bu ko UMS dénoncé wul mais quelle est la raison d'être de l'UMS mais parce que Souleymane Teliko il est là pour défendre la coopération mais il est là aussi pour faire évoluer n'est-ce pas le fonctionnement de la justice dans un sens d'une justice équitable mm-hmm. je rappelle que Souleymane Teliko à l'occasion d'une rentrée solennelle des cours et tribunaux moom moo prononcé woon le discours d'usage sur le droit à un procès équitable mm-hmm. Mm-hmm. Euh, professeur ñu avancé ba tey wàllum justice ñu gis ne au-delà de Télico même sax bu ñu jugé nit à chaque fois mbir yi dafay am problème dañuy wax ne euh, état bu Sénégal wala ministre dafay am mainmise ci affaires yi procédure judiciaire yi tey est-ce que jotuwaat ñu réformer waat ut ay réforme de profondeur profondeur yoo xam ne bi ñu ko defee rek justice bi dina gën a libre. xam nga man damay toog ni boo jëlee de 1960 à 2017. Mm-hmm. ba tey jii sax mën naa ko wax 2000. le président Macky Sall a fait l'une des réformes les plus fécondes de la justice sénégalaise mm-hmm. muy les référés administratifs gis nga ñoom France entre 1872 ba 2000 lañ koy doogaan dans le contentieux administratif publique dafa am solo ñun mësuñu ko woon a am président Macky Sall moo ko ñëw def ko dans la loi de 2017 portant création de la Cour suprême mm-hmm. loi boobu daf lay permettre yow administre tey tey tey tey tey boo bëggee marche nguur gi tere la ko bu la neexee yóbbu ko cour suprême en quarante huit heures loi boobu daf lay permettre yow su ñu la bañalee dara nga dem en quarante huit heures cour jox la ordonnance ma jox la exemple moom la ñu utiliser woon ci ñi nga xamante ni ils étaient dans la diaspora bi ñu nee leen les dépouilles des corps des personne n'est-ce pas voilà leurs avocats ont utilisé le référé liberté gis nga cour suprême dafa ma ci obligé rendre une décision rapidement mhm. parce que le juge des référés c'est le juge de l'immédiat c'est le juge de l'instant extraordinaire mhm. nguur gi moo ko def dañ koy wax parce que loolu la aussi état de droit ñoom suñu defee dara dañ koy wax mais su fekkee aussi am na fu ñu soxla dañ koy wax moo tax ma ne c'est l'une des réformes les plus fécondes n'est-ce pas de la justice de 1960 maintenant waaye depuis lors mun nañu jàpp ko def mhm. la justice am solo pour le besoin même c'est important fii entreprise la fu ne entre te te dañu bëgg loolu la justice commerciale dafa am solo dafa am nu muy doxee en terme même de flexibilité maintenant soo jëlee lu mel ni maintenant nguur gi ñoom dafa am réforme yoo xam dañ ci sooxe ma jox la exemple bi ma doon wax dañu def référé administratif mm-hmm. mais justice administrative boobu jegewul situation jegewul askan wi mm-hmm. xam nga la moo tax yow tey boo amee ay parents yu nekk Fongolim bu ñu jëlee seen suuf mënuñu ko jooytu fa ñu nekk il faut ñu ñëw ba dakaar Cour suprême bu ko maire ba xaatimee il faut ñu ñëw ba fii xam nga tey jii nii la président de la République pouvait bel et bien créer des chambres administratives moom ci boppam en 2012 maa koy rappelé même pour la Cour des comptes jël na si jéego bu am solo parce que le président Macky Sall moo jël la nouvelle loi sur la Cour des comptes mais par contre dafa programme woon ni dañuy créer des chambres régionales des comptes dans les tribunaux de grande instance defuñu ko ba tey léegi beneen bi ci topp nag mooy la condition du parquet parce que dans notre système le parquet est adossé et donc obéit à l'exécutif mais foofu mooy problème bi parce que tey jii nii en réalité am na certaines affaires yoo xamante ni parquet bi dafay am des instructions à caractère général et individuel mais UMS def na ci sax ay proposition avec même ñoom Souleymane ko ni leen même yenn instructions yi à caractère individuel yi nañ ko bàyyi bu ko defee justice dana mën a commencer soqaliku am n'est-ce pas moom boppam wala nekk ci yoonu moom boppam loolu moo lay wan ni les réformes dafa yéex ganu ganu ñoom def nañ ci mm-hmm. mais parce que le problème de l'indépendance de la justice c'est le parquet parce que sunu parquet nekkoo ko exécutif tënkee dafa diis ci kawam ma jox la exemple rek ministre procureur mënu ko woo il faut mu laaj autorisation président de la république ci affaire bii ñuy wax ni of nag bi dinañ ci waxaat mm-hmm. pour te dire tout simplement que tey jii nii Sénégal dafa bëgg de dafa war a dem vers des réformes profondes beneen bi ci topp am na ay notions fourre-tout yoo xam ne dañu nekk ci loi bi même magistrat bi nga xam ne il est inamovible ñoom mën nañ ko fa jëlee dañu naan par nécessité de service xam nga c'est des notions fourre-tout mm-hmm. maa xam dañu waroon def un toilettage justice nag yamul rek ci loolu mm-hmm. dafa yam aussi ci li ñuy tuddee par exemple la présence de l'avocat la question des prisons et beaucoup d'aspects mais mu ñëwaat mm-hmm. sur la justice constitutionnelle le président Macky Sall yóbbu na le nombre de membres de cinq à sept ans mais conseil constitutionnel amul benn changement structurel dans ses méthodes et ses techniques mm-hmm. moo tax ba tey jii nii bu ñu réviser constitution bi sax danaan mënuma ci wax parce que constitution bi cëralu moom moo wax ci pouvoir constituant waroon na laal conseil constitutionnel ma xam ne conseil constitutionnel bu Sénégal dootul may assemblée nationale muy def naka sudul noonu beneen bi ci topp mooy les yi nga xamante ni tey jii ñi ngi fi mm-hmm. par exemple tey war nañu mun a def de telle sorte que yenn juridiction yi ñu mun leen a dooleel ci wàllu n'est-ce pas budget pourquoi pas justice su Sénégal mënul dem ba am budget boppam du assemblée nationale mooy voter son propre budget mm-hmm. pouvoir la de mm-hmm. mais pourquoi pas la justice du voter budget beneen bi ci topp nag ci magistrat yi lay ñëw parce que wax rek conseil supérieur de la magistrature mm-hmm. dafay indi un esprit corporatiste parce que justice magistrat yi moomuñu ko on devrait aller vers un conseil supérieur de la justice loolu aussi a réforme la même UMS wax na ko su boobaa noonu waa barreau bi dinañ ci mën a dugg parce que ñoom la l'avocature la magistrature la faculté ñun ñëpp c'est la famille judiciaire bu ko defee nga xamante ni tey jii nii affaire bu mel nii bu ñu ko yóbboo tey foofu tey dina am benn regard bu ñu koy mën a amee mais du doon donc un aspect corporatiste et puis la justice va s'ouvrir sur la société mm. parce que la justice n'est pas l'affaire de l'État elle est l'affaire du peuple l'État même est soumis à la moo tax bu ñuy jël tey décision de justice da gis ni dañuy bind au nom du peuple sénégalais. Mm-hmm. mais bu ñu jëlee loi. Mm-hmm. dañu naan cette loi doit être appliquée comme une loi de l'État. Mm-hmm.